صلى الله عليه وعلى آله طيبين طاهرين وعلى صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مكي جولي أمي جامع سبيسي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا بي سنتي يالا دوي سنتي يالا بباه دي سنتي يالا بني موي كاتم من يفيك بني لسواري دو فتاني فجر دي والحمد لله رب العالمين الحمد لله دائما وابدا الحمد لله كثيرا الحمد لله كل حالي موي جنجي سنتي يالا سنتي بو أمر عبامي دي جلسي انتبه صلى الله عليه وسلم أكواكي نبا صحابامي أكيبو كامي يانجي تبسونا نعم. بيوم القيامة دي نعم. يالا سبحانه يالا نعم. بولي سنيني o yalla he jaamu en ko fanano ko yalla mi jamu yalla yalla jamu yo ko sudo yo ko nyokata yo ko ñu wér ñu feebar nekk si kër gi nekk si lopitaan bi yalla ne yalla safara yalla ne yalla fokk seen bopp yalla delo seen sago yalla so leen bu wér bu ànd aafiya yalla may ne aafiya jullit yi yalla yërëm leen yalla yaatal seen bàmmeel yalla seen bàmmeel mu nekk rawdatu mbir yalla yalla ndaw yalla saama leen aar leen laxal leen fi yaa ko leen si yoon siraatul mustaqim yalla musal leen si fitna ak musiba wala shaytan yalla subhanahu wa ta'ala warsagal leen xam-xam warsagal leen liggéey warsagal leen subhanahu wa ta'ala ay andaloor yu baax jigéen yi yàlla sàmm leen aar leen laxale fu yaa égut di gën a ndokkali jigéen yi rek si weer bu tedda bi seen coono bi ñoo def macha allah eh, yàlla subhanahu wa taala eh, du nekk neen ni inna allaha la yàlla moo wax ne man kuy def lu baax rek duma ko neenal bon nag jëf ñoo def eh, ndik suñ ne jigéen si weeru koor am na ñetti fay fay bu njëkk bi mooy ban oor na mu ngi ñaare bi mu ngi tooga ñetteel bi mu ngi jox ñi or ndogo subhanallah muy loo xam ne yàlla subhaana taala mi ngi wax ne asawmun lii wa ana ajzi bihi bon kooku boole ñetti liggéey yooyu macha allah na si yaakaar fii yàlla bu baax a baax te bu musa xaadi xam ne yàlla subhaana taala li mu wax si alquran imalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuun waaw yàlla mun a jëf leen yàlla dina ko gis yonent bi dina ko gis ak jullit nañ ko gis bon nag góor yi suñ amee ñaar di góor lan la mooy def or ak joxe dépense jigéen or tooga jox ñu joxe lekka bon nag foofu la jigéen ñi amee raaya bu mag boobu bon yàlla leen yàlla gën a taxaw yàlla leen yàlla gën a jàppale yàlla leen yàlla gën a dëgëral yàlla subhanahu wa bi ngeen a yëg si waañ bi ko yàlla def si fii ay arjana waaye defal ko mboolem jullit jigéen yi yàlla yi tamit yàlla subhanahu wa taala sàmm leen aar leen allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa mbokk jullit yi ñëwaa fi si daaray muhammad sallallahu alayhi tamit yàlla def seen poos yi dara macha allah ndax bi tapaas bi gën a doon yàlla yàlla def seen poos yi dara gor yi fàttewu de waaw jërë ngeen jëf kon nag mbokki jullit yi ñu ñëw si hadis bi yonente bi aleyhi salaatu rek wana ne dëkkuwaay arjana yooyu dafa am ñu ko yàlla jagleel bokk si oor hadis bi yonente bi aleyhi Salaam wasalaam mu ne anna fi jannati xurafan yura zahiruha min batiniha wa batiniha min zahiriha aaddaha allahu taala liman at'ama taaman wa ataaba kalaaman wa abaxa siyaaman wa aqama salata wa nnaasa niyaam allahu akbar allahu akbar hadis bu am solo yonent bi alayhi salaam mu ne arjana am na ay kër yu fa nekk ay néeg yoo xam ne maanaam doo mun a xamee biir ak biti bi macha allah foo si gis nga foog ne fii mooy biir wala fii mooy biti waaw ndik lan taar ba néeg ba taaru wala kër boobu naka la mel waaw doo mun a xam daal ban moo gën a rafet biir bi wala biti bi subhanallah xam nga léegi la suñ kër yi di nga gis ne ah ñëw naa si biti macha allah na waaye bu nga dugg si biir nga gis ne biir moo gën si biti parce que li ñoo def si biir néeg bi nekku si biti waaye nekk arjana nag dafa uteeg yu nekk si àdduna subhanallah bon kër yooyu naka la war a mel waaw kër yooyu naka la war a mel si yaañi ak taaru ak rafet ak baax ak maanaam loo xam daal bakkan daf koy bugga ndi kër yooyu amul àdduna waaw kër la kër bokk lañ eh, tuur rek lañ bokk ak kër yi àdduna waaye déedéet duñ benn yéen bi sallam di ñu wax nag mu ne kër yooyu nag ñan la ko yàlla jagleel waaw mu ne aaddaha allahu taala liman at ama taam kuy joxe ñam rawatina nag ñu nekk si weeri koor bi mbokk julliti nga gis am na sa dikkandoor boo xam ne eh, loxoom jotul gannaawam macha allah xamaa sax léegi-léeg mu ngi xalaat lan la moo ndogoo waaye nga ne déedéet kii bu soobee yàlla ba weeru koor bi jee bés bu nekk rek naa ko yëkkal naa ko yëkkal lum mu ndogoo xataa sax boo ko mënee continuer weeru sax waaye nga ne si biir weeru koor bi daal kii macha allah xam naa daal nay métti si moom pour mu am lum dogo ndogoo moom kee naa dëkka bu demee bu demee uti dara sax wala liggéey sax wala mu ngi foraatu dara sax bu ñëwee mu ngi seet naka la lu mooy tooga nga gis ne kii dëgg dëgg dëgg kii nit na ndimbal nga ne kii de bés bu nekk incha allah suñ toogee dinañ koy yëkkal bool dem jox ko kooku kuy def loolu te yàlla tax kooku boo na si ñu yàlla de jagleel kër boobu kër boobu nga xam ne moom la ñu wax ni si arjana mu ne ak kan wa ataaba kalaam gis naa wax ju rafet wax ju baax wax ju xam ne dafay jubale wax ju xam ne du waxi naafeqa du waxi rambaaj du waxi yaaxa du waxi fen du waxi tapale wax ju baax wax ju rafet wax ju defar wax ju xam ne dafay jokkale mbokka waaw ku xam ne boobu tamit sa jikko la ah kañ yow bokk nga si ñi yàlla jagleel kër yooyu waaw ñetteel bi mu ne abaha siyaam ki kii or or bu set maanaam ne kii or te yàlla bul ne nit ñi dañoo or ma or wala rus ma nekk si kër gi xale or te oruma déedéet sellalal sa koor te yàlla oralité yàlla tax liñ aaye si koor yëpp nga góorgóorlu def ko si bëccëg ki koor li nga xam ne ko aaye si bëccëg ki yëpp nga def sa kéemtalaay kattan moytu ko waaw mooy ki nga na kooram waaw ak kan di mu ne salaata wa naasi niyaam waaw mooy ñuy xaar ba nit ñi guddi ndeysaan nit ñi guddi nit ñi tëdda ñu jóg di naafila ñu mooy waxtu bu am solo waaw ah, borom xam mu wa man araada ula saxara layaaliha waaw wa araada ula saxara layaaliha ku bëgg a kawe ku bëgg a jigéen yàlla subhanahu mu ne da ngay wàññi nelaw yu guddi waaw wàññi nelaw yu guddi ni nga koy def mooy di jóg di jaamu yàlla di julli ñaar raka selmal ñaar raka selmal comme ni ko doon waxee rek masha allah si loo xam ne guddi gaa ngi selaw ñëpp a nelaw nga jóg di si jaamu yàlla yonent bi salaa sallam ñii la ñu limal na ñii yàlla ngi leen jagleel kër yooyu nga xam ne doo mun a xàmmee biir bi ak biti yëpp taaru poo si gis rek nga ne tey fii moo daax waaw ñooñu la ko yàlla jagleel mooy ñan ñu joxe ñam te yàlla tax ak kan ñi nga xam ne wax ju neex rek wax ju rafet rek la wax du wax yi tappale du wax yi mboosoor waaye wax ju baax wax ju pade di tudde yàlla di jokkalante jokkalante ay mboka ñetteel ba mooy kan mooy ki nga xam ne dafay seelal kooram ñeenteel ba mooy gan mooy kuy jóg guddi di julli di naafila di jaamu yàlla bon mbokki jullit yi lii bokk na si waxtu bi ñu nekk nii kuy sellal kooram koo xam ne yaa ngi oorte yàlla tax te lii mooy li nga xam ne sax mooy gën a mooy waxtaan bi mooy li nga xam ne rek mooy weeri koor bi ñu nekk pour wane ne xéewal bi weeri koor àndal jàmm bi weeri koor àndal baax bi weeri koor àndal ak mujj bi weeri koor àndal xoolal rek ku ko sellal rek gis nga kër yooyu nga xam ne moom la ñu tudda si arjana rek yàlla subhana taala mu la fa jagal benn pour ne yàlla lañ bokk si ñi nga xam am si kër yooyu yowmal qiyaama yàlla lañ bokk si ñi nga xam ne yàlla subhaana taala lañ jagle si kër yooyu defal ko defal ñu ko defal ko suñu waajur yi ak bépp jullit képp kuy or te sela sa koor rek yàlla nga bokk si ñi am si kër yooyu yàlla subhaana taala defal ñu xéewali àdduna xéewali allah ramatañu safara allahuma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin amin